le nombre de candidats à la candidature ñu bëri. Mhm. les vrais candidats incha allah le 20 janvier lañ koy xam. Mhm. su conseil constitutionnel waxee ne. diw ak diw ak diw ñoo jàll parrainage. diw ak diw seen dossier mat na. parce que dossier bi solo ñu koy laaj ñu koy fàttali. Mhm. am na des pièces politiques. des am na des documents d'état civil. parrainage caution et cetera. mais man déjà dama bëggoon profiter ci tribune bi pour féliciter li ma gis conseil constitutionnel. man maa nga fay jaabante fan yii yëpp. parce que ñun suñu parti bunt bi euh, dafa amoon principe mais il n'est pas question bunt bi dem moom kenn élection présidentielle mm. dem nañu élection fukki yoon législative locale et tout mais ñu daal vraiment pour 2024 pas question man li ñu ma sasoon en tant que président mm-hmm. mooy nañ ut coalition bu yaatoo yaatu yaatu dugg ci mm-hmm. mais ma ñëw rek ci conseil constitutionnel mm-hmm. foog ma rendre leen hommage parce que dama fekkee entre 16 heures 18 heures de travail non stop maa ngi félicité le greffier Ousmane Ba ak personnel bi ak la lekkuñu naanuñu tooguñu on enchaînait les dossiers ñun ñu toog fa ak ñoom arrivé à huit heures am nañu fa jàll dix huit heures dix neuf heures keroog man dama dem ñëwaat jusqu'à minuit et demi am ñu fa toog ñu delluwaat ko defaat ko defaat ko tey ñu labbali ko donc dama ne ah, dëgg la Sénégal moo ko jaar institution moo ko jaar mais je pense que beneen yoon foog ñu anticiper parce que les conditions logistiques oui. les conditions d'accueil mm-hmm. même les conditions de sécurité mhm. et puis d'ergonomie parce que nit aussi suy liggéey mhm. dafa laaj un peu confort parce que ñoom li ñuy li ñuy xool dafa métti mhm. nit ku ci nekk da ñu indi sa dossier à près neuf pièces bu ci war nga ko xool est-ce que casier judiciaire bi baax na est-ce que date bi ñu ko signé correspondre na pareil pour pareil pour certificat de nationalité bu nekk kayit yu jafe loolu nag ak casier judiciaire mhm. loolu aussi occasion la pour ñuy wax ni suñu état yi dañoo war a moderniser mhm. parce que kayit yi nga xam ne nag état bi moo koy defaral boppam mhm. moo koy concevoir moo koy bind moo koy archiver moo koy contrôler moo koy vérifier waaye ca dëgg-dëgg na bàyyi dañu ko laaj waaw na bàyyi dañu ko laaj parce que état lépp lu soxla ci kayit yooyu rek moo na ko amal boppam loolu aussi dafay xaw a def euh, une simplification administrative lenteur lenteur maintenant quatre deux cent soixante six candidats au départ ont retiré leur fiche de parrainage mm-hmm. quatre vingt treize ñoo déposé dama la ëpp na euh, ah. déposé seen caution bien sûr déposé une caution am na sax ñu déposé seen parrainage am na ñu arrêté mais mais mais li am solo ci loolu mm-hmm. dëgg la dañ ne le jeu politique am na ñu wax business am na ñu wax leneen. Mhm. loolu aussi je pense que travers la liñ ci mën a jàngat. quand même travers la pour man. Mhm. dama gis ne dëgg la am na engouement. Mhm. nit ñi commencé nañ wóolu seen xam-xam. wóolu seen équipe. nit ñi tukki nañu. gis nañ yeneen présidents yi dañuy fonctionner gis nañ ay présidents yu ndaw. am moins de 40 ans. ji jiite ay état jiite ay gouvernement. donc mu am engouement donc mag ñi aussi. ah sama classe gi war nañ mën a pousse ndaw yi tuuti rek. Mhm. ñoom it ñu dénk leen yëf yi ndax ñu mën a doxal. Mhm. parce que nag entre nous de 1960 maintenant euh, à le président Macky Sall euh, on a eu quand même des présidents plus ou moins âgés. Mhm. les jeunes sénégalais en général les jeunes leaders ils ne sont pas aux commandes alors que jot na ñu boole leen ñuy saytu di jéem di defar di tabax. gis nga loolu suñ koy réussir en termes de gouvernance ba fal ndaw bu am projet boo xam ne daf ci ànd ak équipe. man gëm naa ne dinañ ko régler donc man li ma ci gis engouement laa ci gis ak bugg sa réew ak bugg a wane et cetera bugg naa ci gis naa aussi réussite personnelle mais réussite aussi politique dëgg la nag ah ku gis lu baax ci wàllu santé éducation infrastructure et xam naa loolu dañ ci wax tuuti parce que y a quand même quelques avancées. mais est-ce euh, euh, euh, seen seen ambition parce que on a vu qu'ici au Sénégal dañuy naan ni que fii pour nga mën fii am yenn ascension sociale yi foog nga ah. dugg ci politique bi parce que on a vu des gens yoo xamante ne il y a quelques années nañ ma bal ci kàddu gi amuñu woon un certain niveau mmh. un certain niveau de vie mmh. mais dugg ci politique bi am yenn poste yi nga gis nga comme ñu commencé am euh, yenn standing de vie et tout ça leur vie change complètement est-ce que c'est pas ce qui favorise aussi alors non dama c'est important li nga wax dafa am solo loolu Adja mais dama ci wax la rek dama ci sama expérience personnelle mm-hmm. fu ñu xëccoo poste rek mm-hmm. wala position rek pousse na kenn aussi bien dans le parti qu'ailleurs mm-hmm. il y a eu des élections nationales j'ai toujours mis d'autres personnes devant parce que dëgg la politique en Afrique et dans le monde dafa nekk occasion pour enrichir nit ñi dañuy dilapider les ressources publiques. Ouais. les ressources publiques ne vont pas aux priorités nationales. Mm-hmm. parce que effectivement da ngay falu sa waa kër commencé waa waa koñ bi commencé fecc mm-hmm. euh, et cetera ñu gis mm-hmm. avant il y avait la petite paillette. ñu gis immeuble bi après ñaari jabar ñetti jabar quatre <laughs> quatre et cetera loolu dañ ko teg ci bët mais loolu c'est à corriger. Eh loolu nag li ñu yaakaaroon ñun. en 2012 ba Ibrahima di ma ci tooñ tuuti. ne dañ ko changer. et peut-être qu'il y a eu des initiatives am na ay idées et cetera mais malheureusement réussir wuñ ko ba tey ndaxte ku ci dégg ci ñoom ñuy wax yaa ngi naan lii ak lii la ñu war def ëllëg. d'accord comme si pendant dix ans defuñ ko woon ma daaneel rek foofu ci nombre bi. Mm-hmm. gis nga euh, le parrainage est une excellente chose. parce que en réalité. nee na mm-hmm. dafay filtrer. mais et, tirage si, au sort la ñu wax même si euh, l'opposition l'a critiqué euh, pendant un moment c'est normal mais l'opposition elle, elle va parce que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir mhm. étaient dans l'opposition hier. bien sûr voilà donc ceux qui nous allons arriver dans quelques jours inchallah mhm. euh, voilà nous allons aussi au pouvoir <laughs> et ils seront dans l'opposition. c'est dessine. si on regarde un peu si xoolee trajectoire wu élection yi depuis 2017. 2019 mhm. voir un peu la pente descendante ça c'est des chiffres. ak les villes perdues loolu mais li ma bëgg wax mooy. Euh, soo xoolee euh, parrainage bi dañ ne tirage au sort lañu def pour ñu mun leen a mhm. mais foofu nag yàlla moo ñu dimbale. parce que li politiciens yi di bañ moom la moo feeñ tey dañuy bañ nekk ci gannaaw kenn. Mhm. parce que da na nag tey ñun loolu mooy force bunt bi ñun dañuy dañuy fonk dajaloo. Mhm. dañoo parce que dañuy politique dafa laaj programme. dafa laaj équipe. dafa laaj leadership. dafa laaj adhésion populaire laaj une ressource financière loolu yaa ngi koy mën a am en équipe waaye ñu doon bañ nekk ci gannaaw tey ñu ci gën a bëri ni ci coalition yi ñooy jiite ñu ñooy fëgg seen dënn kenn du man may candidat parce que def naa lii def naa lële et cetera ñu ci gën a bëri ci ñoom ñu ngi derrière suñ dajaloo woon nag comme li am ci yenn dëkk yu mag yi parce que les démocraties aussi se consolident xëy na loolu du am tey parce que ku doon ci coalition mhm. euh, tey nga nekk dépasser les vingt la ñuy wax parce Ouais. il faut que ñu xool statistique. d'accord chaque candidat a déposé entre cinquante et cinquante huit mille parrains. Mm -hmm. mais soo passé vingt yaa ngi dépassé nga un million. cinquantième position bi. Mm -hmm. y aura presque deux millions cinq cent mille bon parrains yu nekk ci kanamam moom. Mm-hmm. te ci yooyu waxu ci am benn doublon. Mm-hmm. donc indi na benn jafe-jafe boo xam ne. ñu ngi am benn configuration foofu lay daanelee. Mm-hmm. ñu ngi am benn configuration boo xam ne dañ ko jàngaat moo tax ma doon wax mon jeune frère. que j'estime beaucoup que nag moom. bés bu waxoon li doxul ci gouvernement bi tey. Mm. télévision bi dafay dafa leen pës. parce que xam na waaye du ko wax parce que dafa bëri sutura. dafa bëri mais xam na ne daanaka dara doxul. y a juste un tout petit peu de vitrine. loolu dafa daal rek foofu. di wax rek ne le parrainage va va va est une bonne est un bon outil. Mm-hmm. mais nag foog ñu gën ko améliorer. ndaxte ndaxte li ëpp na. Mm-hmm. Euh, parrainage bi ni ko doxalee c' était pas bon. c' est pas bon métti na Sénégal dafa amoon luuma. Dakar dafa amoon luuma. dans les quatre régions. Mm. dakaar Diourbel Thiès et Kaolack dañ gars yi daanaka dañ doon jënd parrainage. Mm. loolu aussi du solution war nañ ci mën a nañ ci mën a génn.